bi loolu amee ndaw yi ak mbokk yi nekk ci diiwaanu yude dégg nañu ne ñi dul yawut nangu nañu kàddu yàlla gi bi piyeer demee yerusalem nag kuréelu yawut gi faratal xaraf di werante ak moom ne ko lu tax nga dem ca këru ñu xaraful bay lekk sax ak ñoom noonu piyeer daldi leen benn beneel mbir mi nettali leen ko ne nekkoon naa ca dëkku yoppe di fa ñaan ci yàlla ba far sama xol seey ci moom noonu ma am peeñu lu mel ni sër bu mag wàcc jóge ci asamaan ñu yoor ko ca ñeenti laafiya mu ñëw ba ci man ma xool ko jàkk seetlu ko bu baax ma gis ca boroom ñeenti tànk yu nekk ci kaw suuf di rabi àll yi yiy raam ak picc asamaan te dégg naa baat bu ma ne jógal piyeer rey te lekk waaye ma tontu ne mukk borom bi ndax dara lu daganul mbaalu lu araam a dugg ci sama gémmiñ waaye ñaareel bi yoon baat bi dellu ne ma lu yàlla sellal bu ko araamal loolu am ba muy ñetti yoon ba noppi ñu ne cas lépp jëme asamaan ca saasa ñetti góor ñañu yebal ci man jóge sesaari agsi ci kër ga ma dal te xel mi ne ma àndal ak ñoom te bu ci werante juróom benni mbokk yi fi teew gunge woon nañu ma ba ñu dugg ca kër góor googu mu nettali nu ne gis na malaaka feeñu ko ca këram ne ko yónneel ca dëkku yoppe woolu simon mi ñu dàkkante dàkkantele piyeer dina la xamal ay wax yu lay musal yow ak sa waa kër gépp bi ma tàmbalee wax nag xel mu sell mi wàcc ci ñoom ni mu wàcce woon ci nun bu jëkk bi loolu amee ma fàttaliku li borom bi wax ne Yaxya ci ndox la daan soobe waaye yéen dees na leen sóob ci xel mu sell mi ginnaaw nag yàlla jagleel na leen may gi mënu mayoon bi nu gëmee Yeesu Kirist borom bi man maay kan bay tebbi àtteb yàlla bi ñu déggee loolu amuñu dara lu ñu ca teg ñu daldi màggal yàlla ne yàlla nag may na ñi dul yawut it ñu tuub seeni bàkkaar ba am dund gu wóor gi ñi tasoon nag ndax fitna ji amoon gannaaw Etiyen ñu dem ba diwaanu Fenisi ci duni sipar ak ci dëkku Antiyos di wax kàddu gi waaye yemale ko ci yawut yi moona amoon na ci ñoom ay nit niti sipar ak dëkku Sireen ñu ñëw ci Antiyos ba seen wax law ci grek yi it ñu di leen xamal xabaar bu baax bu yéesu borom bi te loxoob borom bi ànd ak ñoom ba mbooloo mu mag gëm te woññeeku ci borom bi bi mbir mi siiwee ba àgg ci noppi mbooloom ñi gëm ci yerusalem ñu yebal barnabaas ba antiyos bi mu agsee nag ba gis yiw wi leen yàlla may mu bég ci te di leen xiir ñu wàkkirlu ci borom bi te dogu ci ndaxte nit ku baax la woon te fees ak xel mu sell mi ak ngëm noonu mbooloo mu bari dolleeku ci borom bi ginnaaw loolu barnabaas dem ca dëkku tars di wut sowool bi mu ko gisee mu indi ko antiyos noonu atum lëmm ñu bokk ak mbooloom ñi gëm di jàngal nit ñu bari te ci antiyos lañu jëkk a tudde taalibe ya gaayi kirist ca fan yooyu ay yonent jóge yerusalem ñëw antiyos kenn ci ñoom tudd agabis jóg mu yégle jaarale ko ci xelu yàlla mi ne xiif bu metti dina daj àddina sépp loolu nag amoon na ca ayub buur ba ñuy wax Claude kon taalibe fas fas ne sàkk ndimbal jëme ca mbokk ya dëkk diiwaanu yudde ku nekk ak sa kem kàttan noonu lañu def nag teg ko ci loxooy Barnabaas ak Sowol yónnee ko njiit ya